jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon euh, tout à l'heure euh, ci Touba waaye egsi nañ fii ci Daarul Muxti kër Serigne Cheikhouna Mbacké moom Serigne Amsatou Mbacké moom borom Daarul Muxti ni ngeen ko gisee booba léegi mbokk yaa ngi ñëw di ne nemmeeku Serigne bi talibe yaa ngi ñëw di ziar ñi nekk ci berne yi nekk ci berne yi ñi nekk ci xasaayid yi nekk ci xasaayid yi ni nga xam ne moo doonoon digal yi nisfu saabaan ñu koy dundalee bésub maam Thierno Ibrahima Fati Ndamal Daaru bi kon lépp loo xam ne rek dana xew fii taataan leen ko ci muallim TV da ngeen ko am incha allahu taala bis bii ñuy dundal muy nisfu saxbaan di bisu borom Daaru Muxti di bi nga xamante ni ci lañ koy fàttaliku daje gi mu daje woon ak Serigne Touba ginnaaw tukkib géej gi te bi nga xamante ni li Serigne bëggoon ci la ko am borom Daaru la bëggoon ci la ko am ba kenn ku ci nekk day ni la bëggoon su ko amutoon yoonu murid du agsi ndax borom Daaru moo desewoon ci wutu Serigne Touba ci njaboot gi ak yoon wi ak taalibe yi taxawu liggéey bi ba lépp ba mu koy delloo Serigne Touba jox joxe na ko nu gën nam ko ko joxe woon ci jàngal njaboot gi ak yar leen Sëriñ Tuubaa itam defar yu baatinu yoon yi ba lépp baax tinu tinu murid yëpp ba nga xamante ni seenu texe fàggul na leen ko ca yoon wa bi ñu ñibbisiwaatee nag seen daje boobu Sëriñ Mouhamadou Fadel Mbacke tànn ko def ko muy bis bii kon nag day bisu màggalu Daaru Muxti Sëriñ Seexuna Mbacke mii di ci ndokkeel mboolem taalibe yi di ci ndokkeel mboolem mbokk yi Mbacke yi ak mbusoobe yi ñi nga xamante ni yëpp ñoo ngi fi ñëw démb ba tey eh, ak fan yëpp kilifa gu nekk ñëw fi siyaar si ko ci bis bi ànd ak moom mbégte mi ndax ba barab bi daa bokk ci pàkki Serigne Amsatou Mbacke moom borom Daaru Muxti nga xam ne ku doon woon waajuram la ci lépp luy liggéey ak jaamu yàlla ba masjid bi nga xam ne moom tabax ci Daaru Muxti moo ko njëkk ubbi jiite ko yor ko di liggéey bi lislaam boo xamante ni eh, yor na ko ba fukki at kon nag loolu Serigne Cheikhouna Mbacke mi yoon woowu rek la jaar muy ànd ak teg fa Serigne Amsatou Mbacke tegoon tànkam muy taxaw taalibe yi ak dundal mbokk gi ci bis mel nii ak taxawu leen ak berndeel leen ni nga ko waxee tamit mbooleem taalibe yi nga xamante ne ñoo ànd ak moom mu tënk leen ci benn nos ndax boo xoolee euh, dëkk bu nekk senegal am nañ fa mbooloo mu fa nekk te aju ci moom euh, maa ngi bàyyi ko léegi ci waa ci waa Ndakaaru waa Mbuur waa Thiès waa Jama ba ci dikk village yi waa Touba ba ci Daaru Muxti gi dëkk bu nekk njaboot ga fa nekk da leen boole ci genn nos bi ñu ñëwee mu mu digal leen ñu taxawul ko bis bi ci yar ak teggin ak bernde ak itam taxawu mboolem luy njàngam alxuraan ak xasida ni buñ ko arrêté benn waxtu ba guddi lépp loo xamante ni nit ki bëgg na ko fi bu ñëwee na ko fekk ci xeeti teranga waaye na ko eh, na ko fekk itam ci xeeti luy dundal ruuxam ndax ku xam ne sëriñ Seexuna Mbàkke mii day borom xam-xam te itti woo lislaam ak diine te doomu aadama yi ñor ko lool daanaka du toog ndax itte du ko du ko du ko tàngam lu mukk loolu waral bis bu mel nii bu agsee ku ne dana fi wàcc kilifa gu ne dana fi wàcc waaye mboolem taalib bu nekk dana fi wàcc dëkk boo dem Sénégal nit bàyyi ko na fa ñëw fi moo waral nag kon mu waajal eh, bis bi waajal wàccaay woo xamante ni dana bëgg képp ku fi ñëw eh, li yow dana ko def waaye du ci yem sax mboolem mbokk yeeg wala réeg dëkkandoo yi dëkkul ci ci dëkk ci dëkk bi dana leen fekk ak fañ dëkk ak seeni teraanga ngir yaatal liggéey bi ba ku ci nekk cër bi nga am moom mu joxe la ko ci bis bi kon noonu la ko noonu la koy sëñ bi defee ànd kook mbooleem taalibe yi nga xamante ne ñoo tënk ci eh, diwaanu Jazbul Xulóob bi sëriñ bi tamit maanaam ittiyam bokk na ci muy jàngal taalibe yi ak yar leen ak taxawu leen ci xam-xam taxawu leen ci diina ak lislaam ku ne xam na ni barab bi ñu nekk eh, ak barab ba mu am moom ba ca daa daara tarbiya am yeeg yëpp taxawal na fa ay jàngu eh, ñu fay jàng alxuraan di fa jàng xam-xam loolu mosu koo wàcc liggéey tamit noonu la ko fonkee kon dañ ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ndax nekk gi mu nekk ci kanamu mbooloo mi di leen gindi mbooleem lu ñu doon namp Sëriñ Amsatu Mbàkke seen seen xel di dal bu ñu ñëwaatee danañ ko fekk ci moom ndax sëñ bi ko ne xam ne nii daa fonkoon bernde fonk màggal Daaru Muxti autorité sax suñu masaana ñëw Daaru Muxti këram la ñuy wàcc li ci ñoom lépp mu def ko ba buñ fa jógee kër Sëriñ Amsatu Mbàkke dutuñu soxla eh, jëfandikoo waat fenn ci dëkk bi kon nag looloo waral sëñ bi itte jooju la am ci bis bi parce que yéene ànd ak mbooleem mbokk yi parce que yéene ànd ak mbooleem taalibe yi di ci yeesalaat ak jokk diggam ak mbokk yi di si yeesalaat ak jokk yi rek ak jéggi mag taalibe yi waaye tamit mboolem taalibe yi nekk bitim réew tey seetaan jama image bi sëriñ bi moo ngi leen di delloo njukkal ndax ñoom itam fii ba France Italie euh, ba ci euh, Espagne Amérique taalibe yi fa nekk yëpp bi ñu yëgee bis bi ak wàccaay wi lépp lu ñu mën def nañ ko ñoom itam sëñ baa ngi ànd ak ñoom mbégte mi di ànd ak ñoom màggal gi fas yéene lépp loo xamante ni nee na mu ngi koy ñaan yàlla suñ la ko suñu borom may yàlla na ko bokk ak taalibe yëpp te moo ngi ñaan tamit suñu borom eh, defal leen taw tawféex mboolem koo xamante ne rek ñëw nga ngir siyaar si ko ci bis bi eh, moo ngi lay sant tey ñaan suñu borom faj say ajo te loolu mooy it ittiyam ndax jaam ñi rek mooy ittiyam bu màggal tamit boo foo ko fekk ci ittey nit ñi ci la yendu du noppalu benn waxtu kon daal eh, loolu mooy kàddu yi nga xamante ni mën nañu koo tënk ci kàddu yi xam ne suñ bi moo ngi koy wax ak mbooloo mi ñu koy siyaar si ñëpp ak mbooleem mbokk yi ak mbooleem mbokki mbàkke yi nga xam ne ni toujours waxtu wu nekk rek ñetti ngi fi bu duggee ci barab bi ci biir danañ fekk ñu baree bari ñoo xamante ne at mu nekk fi lañ ñëw ànd koog moom yendu koog moom eh, guddi ba bëccëg saa su nekk boo ñëwee fekk leen fi ba démb ba tey ñoo ngi fi ñëw ku ne ñëw na fi kon nag loolu day day day day loo xamante ne sëñ bi rafetlu na ko te xolam sedd na ci moo tax mu yëkkati kàddu yooyu ne nañ ko nañ ko yëkkati ba ñëpp xam ne sëñ bi xolam sedd na ci mbooloo mi xolam sedd na itam ci itti ji ngeen ko jox ci bis bi ndax daaru muuti màggal gi moom xam na ni màggalu dëkk bi la ku fi ñëw ci dëkk bi rek wuy si nga waaye nag ki raw ki rawatina ki ñëw ba ci moom moom ko amul fayam kon moo ngi sant bu baax tey gërëm ñoo ngi taxaw ak ma uh, Massamba Fall bokk ci uh, kenn ci taalibe yi nga xam ne uh, fii lañ laxasaayoo muy këriñ kër Serigne Cheikhouna mbake Euh, waaye kër sëriñ Amsatou Mbacké sëñ bi ñu ngi lay nuyu la siyaar. waaw ñu ngi leen di siyaar bu baax waa Lim euh, TV euh, ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di kontaan ci jëf ju rëy ji nga xam ne dara tolluwu ni ngeen def ko ci bisub tey bii di bisub ki nga xam ne mooy maam Thierno ñu koy wax Baye Cheikh Awa Balla ak Modou Balla aw Balla Kumba ñun maam Dieng wax ma baram mbaxanam ciri care baram dam ak baat gi ñu ngi buñ bëggoon a xam kër gi nga taxaw fii nga laxasaayoo mooy gën kër ak kër gi itam lan la fi euh, nit mën a jëriñoo. Euh, fii ñu ñëw tey nag euh, maanaam da ngeen delloo mbattu ca la ndax fii tey fii kër la woon goo xam ne ku ñuy wax imaamul borom daarul muxti muy Cheikh Amsatu moo ko defoon ak géttam ñun ñu fi daan nekk di sàmm ak ñëw di fi ratt si euh, ki nga xam ne nag mooy euh, imaamam di sëriñ Seexuna Mbakke mu soxna Roqeetu Mbakke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbakke euh, moom Cheikh satu moom moo fi def daaraam di sëriñ Seexuna Mbakke di sëriñ sëriñ di sunu wasila mu def fi daaraam nag nekk bërëb boo xam ne bërëbu texe la ndax bërëb la boo xam ne képp koo xam ne ku fi ñëw ak aajo joofu mën a indi suñu borom dina ko euh, saafara suñu borom dina ko euh, euh, faj mu nekk koo xam ne Serigne Cheikhouna mbake kenn dootu ko présenté kenn ci njabootul borom Daarul Muxti ndax mooy im bàyyam di Serigne Amsatou Mbacké de sunu wasila de sunu yaakaar ñu laxasaayu ko ah moo nu yar tarbiya ñu tasfee ñu tarxee ñu Euh, sëriñ Abdou Lahad euh, Cheikh Abdou Lahad maamam ja mhm. danaan wax ne yoonu murit moom dara la ko lu du jëf ak ak ñaq ak joxe euh, loolu dong moo lar yoonu murit te moom ci la sax boole cee nag mu bokk mu nekkaat imaamul borom daarul muxti mhm. nekk koo xam ne sëriñ bu bu bu bu bu am passeef la ci ay taalibeem boole ceeg nag di jëfe ndigal mhm. dara ñoru ñorub seexu na Mbakke lu dul ak taalibe dara doylu doyloowu ko lu dul ak taalibe ak taalibe la doyloo foo ko gis foofu fu mu mënti nekk ci àdduna taalibe rek moom ñoom lay sagoo ñoom lay tiroo bañ na ko ba lépp loo xam ne yow yaa ngi koy jëf tey nga man ko mënoo ko dina la woo laaj la tax ko bu fekkee mënoo ko moom mu jël ñàkk boppam defal la la nga xam ne moom moom nga daan def te loolu sëriñ bi euh, naka lay dundalee euh, bésub maamam bi euh, di maam Cheikh na Ibrahima Fati waaye naka la koy dundalee ci kër waay juróom bi nga xam ne lépp jàngale la woon waaye nag ak yar tarbiya ak tarxiya naka lay dundee bis naka lay dundalee bis boobu. bis bi li ma la ko mënee wax daal euh, mooy euh, maanaam euh, alxuraan. ak xasaayiti man bam ba lu mat ñaari fan ak ni ñu ngi bokk nekk ak moom li ko commencé 24 heures vingt 24 ba tey ci suba ci fajar ñoo bokk jullee ndoom moom ak fajar muy màggal bis bi ci alquran di màggal bis bi ci xasida te loolu ndono la ci moom ndax buñ ne nawet boo gis wolof njaay def ne nawet boo gis maam jëlay nuru boo ko jéggee rek gara fay jebbi buñ ne anakan mooy sa waajur ñu ne Cheikh Amsatou Mbacke ilimaani borom daarul muxti buñ ne anakan mooy sa waajur ñu ne soxna roqeetu Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, mi nga xam ne kenn ku ne xam ne danaa wax na saxaar laa ma wàcc buraay te yaakaar naa ne li ma def nii man war naa ko ma def ndax wolof njaay def na bu jubeb gaar day korne ndax sëñ Seexu naa nii ah, mooy sama wasila mooy sama sëriñ man ma nekk uh, ci uh, uh, média yi ah bokk nekk ci fi nga xam ne mooy sen louis ah nekk ca fa nga xam ne mooy fréquence Teranga ah def jëf ju rëy rëy joo xam ne ah ñëpp ñu ngi ci teg seen bët ah kon su ma ñëwee fekk leen fi ngeen nekk samay naatangoo mhm. ah lépp lu ma man ci yéwénal leen ci fii kër gi nga xam ne fi laa yaroo lu ma doon man moo ma ko def mhm. ah ko baaxee ma xamal leen ne sëñ naa moom lépp lu muy màggale bi di maam Thierno mooy jàng xasida jàng alxuraan fonk euh, euh, gan ñi léegi la fi lii bayit wii ñuy wax xam ne sëñ Tuubaa ko waxoon na inaa la seen ila sar saara xasxasado siyaaratil faaraxoo daare ni aw saara léegi la fi waa euh, ahlu daymaan jógee muy naar yi ñëw fi siyaare ko mu yëkkati la nga xam ne moom la waajuram wa ak maamam jël si xol ak ñoom moom jox addiya mm-hmm. ah loolu léegi lañ fi jógee bàyyi ko siyaare ko mu jox leen addiya addiya ji doon te maamam moo ko waxoon mu ne inaa la ila sar saara xasxasado siyaaratil faaraxoo Makhfoud Daarayni aw jërëjëf euh, sang bi Fall merci beaucoup jërëjëf ma samba Fall nekk kenn ci ñi nga xam ne euh, ci kër gi lañ euh, yaroo jaajëfal nañ mbokk yi ñu ngi taxaw ñu ngi toog ak kenn ci jëwrinu daayira bi wala sax jëwrinu daayira bi muy sëriñ Amsatou Fall sëriñ Amsa ñu ngi lay nuyu la ziar asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di fay nuyoo di leen jaajëfal ci liggéey bi. Euh, sëriñ Amsa naka ngeen di doxalee daayira bi waaye itam naka ngeen wàccee euh, waaje li nga xam ne mooy euh, màggalug Daaru Muxti. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax nuyu mbooloo mi ñëpp ñu fi teew di nuyu it sëriñ bi nga xam ni moom la àndal ci liggéey bi nga xam ni moom lañuy liggéeyal sëriñ bi mm, daayira bi. moom daanaka ni daayira di doxe rek lay doxe muy ni murit baaxoo doxe euh, jëfe ndigal yi tey moytu yi ñu tere euh, bu loolu amee it waajtaayu liggéey bi waaj nañ ko ci anam yoo xam ni mucc na ayib lool comme niñ ko daan waajale ndax duñu mas a bett ginnaaw ñun murit lañ te duñu wàcc dañuy jàpp ni bu buñ jógee déwén rek nañ waajaat jëm ca ba ca des mmh. Mmh. waajtaayu it wax dëgg yàlla def nañ ko ci waajin bu am solo daal wax dëgg yàlla euh, waaw daayira bi moom ni muy doxee it mooy comme ni ma ko waxee ni daayira yëpp di doxee ndax bëgg a adhéré gi moom mooy ginaaw bi nga nangoo joxe sa bopp euh, ñëw ci sëriñ bi jébbalu ci moom kon day mel ni bëgg ngaa adhéré wu ci daayira bi léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw liggéey bi ñooy fexe ba yëgal ko ki nga xam ne yëgagul ni muy doxe en même temps it néew na ko bokk ci yoonu murit te xamoo ni kër gi nga bokk am na daayira kon li ciy des mooy nit ki nga xam ne yëg na ko te war cee bokk moo war a soññi boppam ndax am murit moom warut a xaar daal ñu di ko soññi vraiment te gis nañ ni ñu bari am nañ ci passif loolu wax dëgg yàlla. Ah, kon dafa mel ne daayira bi daal daayira euh, kër sëriñ bi la sart bi njëkk mooy euh, nga nekk taalibe boo xam ne taalibe euh, sëriñ bi la waaye maggal gi nga xam ne mooy màggalug daaru chaque année naka ngeen koy dundalee ak bii mooy ñaateelu yoon ngeen koy dundal ci kër gi. waaw bu ma Euh, ñu ngi koy dundal fii. wala sax mu ëpp ko nag ci comme takkuma bis yi ñu ko fiy dundal. Hmm. waaye danañ ko dundal comme euh, waa juróom-ñaareelu at comme ni ko sëñ Abdou Khadir fàttali ñu ko. Hmm. Euh, biñ koy njëkk a tàmbali wax dëgg yàlla booba waaye juróom mi ngi fi woon. Hmm. mu mel ni mbooloo mu néew moo ko tàmbali woon waaye mel na ni sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax am nag dollee ko bu baax daal wax dëgg yàlla. Euh, niñ koy dundalee it wax dëgg yàlla danañ ko def ci sunna ak euh, mën naa ni farata sax ndax màggal la du bokk bis boo xam ne bisu farata la waaye danañ ci def jëfi farata muy jàng alxuraan ndax farata la en même temps lu yëngu bi bari bari it du tax ñu retard benn waxtu ci waxtu julli yi nga xam ne day mel ni liggéey bi du ñu poussé bañ fàtte waxtu julli bi ndax sëñ bi ku nekk xam na ni wax yàlla boo nekkee ci kër koo xam ni imaam la te xam ni mu war a dundale sunna ak farata nga ànd ak moom liggéey bu mel ni defe naa dundal ko du jafe ci yow daal vraiment daayira bi nga xam ni diwaanu Jazbul Xuloob la euh, ma di leen soññi rek ñu gën a yokk seen pas-pas parce que vraiment ay jàmbaar lañ ndax li ma la ko waxee rek bu jogee fii tey tey ma wax ak yow suba euh, ñi ngi continuer waat parce que murit du wàcc kon ginnaaw bu ñu leen soññee nag ñu gën góor góorgóorlu ñoom it ngir gën koo mën a yaatal rek gën koo jot li taalibe yi te xam ni ñu ngi ci sax waaye ñu soññi leen ci daal mu mel ni ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew yi yëpp mhm. ñu ngi am information bi en même temps ñu ngi ci dox niñ ci war a doxee ba nii ñuy waxeeg ak yow dañuy jokkoo ñun ñu leen di informer mhm. euh, ñoom it ñu am ci cawarte loolu daal waaye ñu ngi leen ciy soññiwaat bu baax nag di ci soññ it koo xam ne yaa ngi dégg suñ kaddu mm-hmm. te fekk jotante woo goo woon ak jëwrini liggéey mm-hmm. nga xam ni liggéey bi daal moom mu ngi dox saa su nekk rek mm-hmm. te it ku doon war nga cee bokk ndax nit du engagé lu gëmul wala waru koo def bu ko defee tamit parce que boo xësee engagé joxe sa bopp rek moomatoo sa bopp te liñ nekk boo gëstoo ba xam ne du ay nax nga gëm ni lii mooy réalité bi nit ki war dund ci dundam parce que dund àdduna nekkul rek liggéey loo lekk loo tabaxe loo def il faut nga def ay euh, xeet yoo xam li ñuy wax wafa loolu xayra laxalakum tuflihun il faut nga jëf-jëf yoo xam ni day day génn sa jëfi diine naa naafila la wala jëf yu baax la yoo xam ne danga nga koy jëflante ak sa mbokki jullit yooyu yëpp day feeñ ci liggéeyu sëñ bi ndax jullit ak moroom ja moom ñëpp ay mbokk lañ léegi nag bu nit ñi ñëwee wuy si la fekk ñi ñëw daanaka ñoo fi indi li fi ne ñenn ñi nga xam nag dañuy dox di fi ñëw danañ fekk ñu pareel leen ci lépp te loolu yi jëf yu baax la ndax mel na ni joxe ñam daal bokk na ci li nga xam ne jëf bu yiw la ak hmm. ay yu mel noonu tey ñu ngi ci jërëjëf euh, sëriñ Mame Thierno euh, sëriñ euh, Amsatou Fall nekk itam jëwrin ji nga xam ne mooy diwaanu Jazbul Xulub am nañ mbégte jàkkaarloo ak yow fii ci kër sëriñ Cheikhouna Mbacké ibnu sëriñ Amsatou Mbacké moom borom Daarul Muxti mbokk yi ñuy seetaan yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare bu baax tey jii ji nisfu saxbaan ci màggalu Daaru Muxti ñoo ngi fii toog ak soxna Daba Mbacke roqee moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke di ànd ak moom fii ci màggal gi dend ak doomam ju baax ji di sëriñ Seexuna Mbacke tey mbokk yi ñëwoon ànd fas yéene dundal bisu borom Daaru Muxti bi fii te ku ne xam na bu ñu tuddee sëriñ Abdou Lahad ci kër sëriñ Amsatu Mbacke xel yëpp ak mag ñi danañ xam ni barab bi barab la ci barab bi sëriñ Tuubaa yi ndax barab bu njabootu sëriñ Tuubaa gi fonkoon la tàmbalee ko ci sëriñ Abdou Lahad ak i rakam yu bari seen diggante ak sëriñ Amsatu Mbacke bi nga xamante ni moo samp barab bi kon tey jii di nit fi saxbaan di màggalu Daaru Muxti ñoo ngi koy màggal fii Euh, di ko dundal ci lépp loo xamante ni alxuraan la lépp loo xam ne sunna la gis ngeen biñ xëyee suba ak léegi fi ñu jaar fépp li li nga xamante ni moom la borom daaru gërëm te bëggoon ko sëriñ Tuubaa bëggoon ko moom rek ngeen gis sëriñ bi fonk ko ànd ko mbooleem taaliba yi ci fonk gan ñi fiy ñëw teral teral leen berndeel leen waaye gis ngeen njàngam alxuraan mi ak xasida yi si suba ba tey amul benn waxtu boo ni ne na ñoo koy def ba tey ñanga ca boole kook tamit waxtu yu juróom yu nekk ñu taxawal ko ca ne waxtu ba mu ah, noonu lañ ko noonu lañ koy dundalee rek ndax li suñ ci waxoon ni tax si moo bi sunnati yàquwut naa li ñaan bis boo ko dundalee ci na mën na laa may xéewaluk àjjana kon loolu la ñu taataan di ko di ko di ko di ko baawaan di ko baawaan fii ci barab bi te yaakaar na ne bu ñu ko fi amee danañ danañ danañ danañ sant di sant yàlla bu baax nag suñu borom subhaanahu wa taala ci barab bii ñu nekk ndax barab boo xamante ni boo fi ñëwee fekk fi jëmmi Serigne tubaa muy soxna Daba Mbacke mi di doomi Serigne Abdoulaye Mbacke nga ànd ak moom di liggéeyal borom daru waaye tamit fekk fi doomu ju baax di Serigne Cheikhouna Mbacke ku ne xam na ab cëram ni mu toll ci dëkk bi waaye ku ne xam na ni tamit bëgg bëgg diinam ak xam-xamam ba tax mbooleem ku baax bi ñu xëyee suba léegi ci ju baax ñi ñu ngi leen di seen ñuy dugg ko génn ngir yitteem ak mbaaxam ak passif boo xamante ne am na ko ci yoon wi kon noonu la ñuy fas yéenee dundal màggal gi di ko defee ci barab boo xamante ne yaakaar na ni ku fi ñëw sa danga am tawféex tawféex ju rëy rey ndax euh, lépp defeen week melow yi lépp daa dëppoo naag li nga xamante ni moom la sëñ waa gërëm waaye dëppoo li nga xamante ni moom la borom daaru gërëm euh, ñu ànd koog itam mboolem taaliba yi rek ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp ñu maase takku ànd fonk bis bii nga xamante ni Serigne ak borom daru ñoo ci daje woon ginnaaw tukkib géej ga ndax xam ngeen ni Serigne Touba bi mu demee ci géej gi bàyyeek njabootam borom daru Muxti fe loolu moo nga xewoon ca Mbakki Bari Jolof boroom daru des fi juróom-ñaari at yu tegal juróom-ñaari weer yar njabootuk sëriñ bi jàngal leen taxawu leen ak rakkam ak ak ak i rakkam ak mbooleem doomi doomi seex yeeg mboolem murid yi jébbaloon te tolloon ci njàng tolloon ci tarbiya Serigne Touba bàyyi ko liggéey boobu mu liggéey liggéey bu rafet Serigne Touba tamit defar yoon wi ci baatin ak ci saahir nekk ca yoonu géej ga ci diggante bu xat boo xamante ni metti woon na lool kon day mel ni résultat yooye borom daaru amee ca liggéey ba Serigne Touba tamit amee ko ca liggéey ba bis bi ñu dajawaat bisu mbégte la moo xamante ni murid duñ ko fàtte mukk ndax ñoom ñaar bu ci kenn amutoon li nga bëgg rek day mel ni yoon wi liñ ci bëggoon du am ndax bu baatin bi jagee tukki sëriñ be waaye bu saayir si jagee ba eh, kon la liggéey maam Cerno borom Daaru moo waral mbooleem borom xam-xam yi ci yoon wi koo ci topp rek jàngee na ci école maam na borom Daaru Muxti ba tax xam-xam tisaaroo ci yoon wi njub tisaaroo fi sunna tisaaroo fi ak ak listixaama tisaaroo fi kon day liggéey bu rëy boo xamante ni Sëriñ Tuubaa moo ko liggéeyoon andi ko borom Daaru Muxti keroog bi mu ñibbisee nag eh, yónni Cheikh Issa jenn mu fekk ko Touba Daaru Manaan fekk booba maam Cerno Mbàkke bari Jolof metti na ci moom ba mënut faa toog mu dellu si Mbàkke jóge fa dem sanc Daaru Manaan ci ndigal Sëñ Tuubaa ba Sëñ Tuubaa ñëwee nag yónni Cheikh Issa Diène moo woosi ko moo tombeeg bis bii di nisfu Saxbaan sëriñ Fallu Mbàkke nag moo joxe ndigalal bisub màggal googu ci sëriñ Modou Awa Balla mu di ko woote boobaak tey toll na ci at yu bëree bëri kon nag loolu ngërëm la ay ngërëm la yoo xamante ne ñoo daje ay mbégte yoo xam ne ñoo daje kon loolu moom la ñu dundal ba tey jii fii nag ci kër Serigne Cheikhouna Mbacké moom soxna soxna Daba Roqee Mbacké mi ak Serigne Amsatou Mbacké moom borom Darou Mouhty ah, ñoo ngi ci ñaanal tamit sunu kilifa yu baax yooyee nga xamante ni liggéey bi fi nekk lépp ñoo ko liggéey muy Serigne Abdoulaye Mbacké ak Serigne Amsatou Mbacké yàlla na leen fi yàlla yàlla na leen suñu borom doolee fayal te doole doole ñoo barkeel suñuy mbir ci seen barke te yàggal liggéey bu baax yàggal fi soxna si mu wér ndax nekk gi mu nekk ci biir ñu ne ci biti di liggéey tax na suñu xel gën a dal tax na itam ku fi nekk da nga fi nekkee ak mbaax da nga fi nekkee ak ragal yàlla da fi nekkee ak ak li nga xamante ni moom la boroom dara bëgg ndax boo nee ci barab tam wóor la sa kilifa ngi ci sa wet boo yëkkee sa kàddu dong mu dégg la nanga nga fay nekkee dana doon melokaan wun tànn moo tax su ak léegi ak li liñ fi gis lépp lu yàlla gërëm la akub yar akub dal kon loolu dañuy ñaan rek teewaayam bii yàlla na yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a wér ñu yàgg a dundal bis bi te yàgg ko ànd ak moom waaw ñoo ngi santaat bu baax mbooleem média yi fi ñëw ànd ak ñun liggéey bi ak mbooleem taalib yi fi ñëw tey ànd ak ak mbooleem mbokk yi ndax képp kun bokkal rek ci mbàkkeek maaram ñu ci ëpp teew nañ ci bis bi kon loolu ak cant la goo xamante ni ñu ngi leen koy jottali yàlla na suñu borom def ñu yàgg ko eh, def màggal yu bëree bëri te yëpp ànd ak tawfeex